El Hadj Cheikh Bou Diop juddoo ci Ndiassane ci atub 1970 di doom ci Adja Marème Diop ak Papa Medoune Diop ci jamonoy ndaw la tàmbali di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko waajuram bu góor daan defee gannaaw doomu jullit gi mu doon El Hadj Cheikh Bou Diop jàngee alxuraan fii ci Ndiassane ci Serigne sama Samake ci jamonoy ndaw la tàmbali di jàng wëy ci ki ñuy wax Bécaye Babou noonee lay dooree ci yoon woowee ba tey jii tey jii nag ñu daldi koy dalal rekk ci suñu émission bi ñu duppee daaray cheikh bu Mouhamed Kunta mu war ñu waxtaanal ci ñett ponk bokk na ci hymne nationalu kër gi ñaareel bi di juróom ak kunta ñetteel bi li si ngénte li kon nag El Hadj Cheikh Bou Diop ñu bàyyi la nga nuyoo aoudu billahi samiil alim min alsheytaani alrajim allaim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin munawwiri al-absaari al-aarifina bi nuuri al-maarifati wal yaqin wa jaazibi azmati al-asraari al-muxaqiqin bi jazabaati al-qurbi wa tamkin faatihi ahfaali al-xuluubi al-muwaaxidin bi faatihati at-tawxiidi wal fatxi al-mubiin alladi axsana kulla shayin xalqahu wa bada xalqa al-insaani min tiin humma jaala nasluhu min sulalatin min maa'in mahiinin allahuma salli ala man la tatanaha mafaqiruhu wa madayaahu alladi ida takallama arwiyaka nuuri yaxruju min bayni sanayaahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ila yawmi ddin wa radiya allahu an cheikhina wa imaamina wa wasilatina ila rabbina cheikh abi muhammad ibn cheikh sidi muhammad ibn cheikh sidi bekkayi l kunti mbokki sénégal mbokki diaspora bi àddina wërngal këpp yéen ñi safoo suñu télévision yi janoog ñun te lépp di wax ci njaasaan te lépp di wane taaru njaasaan lépp di wane li maa ngi jàkkaarloog presse bu baax bi gannaaw ba ma dégloo seen présent présentation bu mucc ayib bi ci ni ngeen ma présenté te matewu ko sax waaye yéen matal ngeen sëkk waaye mu nekk soññe ci ñun maa ngi ñëw tey nekk nag ci daare Cheikh bu Mouhamed Kunta fas yéene def sama kéemtalaay kàttan ci tontu seeni question yi ngeen xamante ni moom ngeen ma laaj di leen déglu ci laaj ak tontu ci liñ ci xam gannaaw bi ma dégloo sa premier laaj mooy yaa ngi ma wax ni lan moo tax kër gi lu nuy ubbi ko seen ibn liñ leen xàmmee nekk subhanallah waaw laaj bu mën a yaatu laaj la boo xam ni xajul ci bis xajul ci semaine xajul ci weer xajul sax ci dundu nit su fekkoon doon nañ ko détaillé ndax imam ali karamallahu wajahu nee na baa bi njëkk ci bismillahi rahmani rahim bu ñu ma mayoon ma tafsir ko dinaa ci sëf ay gëléem te imam ali kenn la ci kàngami tariqa bi danaa ci ñëw waaye lu tax xëy na ñëpp ngi wax subhanallah ñëpp a ngi wax njariñam waaye ñun du sunu dayoo dayoo ki ñu ko jox la mooy Cheikh Sidil Amin ibn Cheikh Abi Muhammad moom moo fekkoon ñu jaaxle lool ci jamono mu woote benn bis ni ñëw leen ma jox leen gànnaay ñu defe ni jaasi la leen di jox mbaa paaka mbaa fital mu ni lu ngeen di ubbeeti dee leen ko ubbee subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa loola njariñ yi ci nekk li ci ñëw ci wàllu aqadis dafa bari waaye nag alquran mooy sunu dalil ñun ñëpp yàlla wax ni loo gis mi ngi sàbbal yàlla loo gis mi ngi sàbbal mu daat ni waaye faiblesse doomu aadama moo tax doo mën a dégg dañu nekk insan daif moo tax du ñëpp ko mën a dégg moo tax euh, keroog ba nuy wax ni euh, bokk na ci mujiza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni suuf si dafa sabbal ci kaw ay loxo mutawalli Sha'rawi daal di wax ni euh, loola du kéemaan ñu ni ko ah mu ni waaw mu jaaxal borom xam-xam yi ñu ciy discuter mu ñu ni ko lu tax ak fan nga teg sa wax jooju mu ni pepp suuf yi ni muy sabbale ci loxo rasulullahi mais noonu lay sàbbaalee ci loxo abu jahlin <laughs> ñu ni ko kon lan mooy mucjiza bi mu ni dégg gi ko yonent bi dégg kon subhanallah na mu mel yàlla rek moo ko xam ndax moom lañ tudd ak sellam ngeen baal ma ndax yàlla la ñuy tudd ak sellam yàlla dinu dimbali nag ba nu am chance bu toll ni Cheikh Sidy Lamine jox ñu ko léppi kër gi moom la koy ubbe loo bëgg mu barkel moom nga koy ubbee te fu mu xas jip dàq na lépp loo xamante ni daf koy ragal baatu subhanallah fu ñuy dem yëg ngeen ni moom la ñuy ubbee waaye njariñ yi soo ko doon xool par étape nañu xool lan lay jariñ tàggkatu yonent bi ci boppam xam nga tagg yonent bi jaamu yàlla la ibada la mais maa ngi wax di ko layee biir di ko def nasiha pour képp kuy tagg yonent bi te bokk ci ahlul kunti soo mënee ak soo mënul su fekkente ni yaa ngi saxoo foo dem ubbee subhanallah te gëm ko jataay boo nekk doo fa am gàcce kooku ci njariñi biir yéeg biti la bokk moo tax ma koy wax mu nekk loo xamante ni ab jaam dafa war a sant la in shakartum la azidannakum yàlla ni bu ngeen santee ma dolli leen xoolal jamono ba Cheikh Si Lamin di wax loolu léegi foo wër internet xam nga dëkk bu ubbeeku la mais foo wër ci àddina léegi di nga dégg euh, ñu ngi wax waxu subhanallah waaw kañ la ko Cheikh Si Lamin waxoon ak kañ la lañu toll ci jamono bi àddina yépp di partager baat bi di wax njariñ yi li ci sallallahu alayhi wa sallam wax waaye li ci alquran wax ñeenti siixa la am yàlla nee na subhaana sunu borom nee na sabbaxa sunu borom nee yu yusabbixu sunu borom nee na sabbisma rabbika al aala kon nag subhaanallah mooy lu dul jeex lii nga xamante ni dañ ko cee jël nag dafa nekk xalilun min kasir defe naa ni dinañ ci mën a jàppandi pour ñu xam ni daal baat la boo xam ni kilifaa ko joxe waaye baat la bu am cosaan ci alquran baat la bu am cosaan ci sunna am cëslaay ci alquran am cëslaay ci sunna waaye mën a dimbali nit lool bu ko defee maa ngi koy digal képp kuy tagg yonent bi su ko mënee na koy sikkar képp ku bokk ci kër gi nag yow farata la ci yow kër gi sax kër yàlla la képp kuy jullit ci nga bokk ndax borom kër gi nee na man qaala laa ilaha illa allah fa kun lahu awnan bil istihzan waaye su fekkente ni kenn ku nekk am na ci kër gu mu yeewoo yow mi yeewoo ci kër cheikh bu Mouhamed Kunta laa lay wax ma ni li farata la ci yow keneen ku mu doon te nga dégg sama wax ji maa ngi lay wax nga ñam ko seet baat boobu day képp ku ci sax di nga gis njariñam mënuma cee sori tàmm baat bi maa ngi waxtaan waaye fu ma agsee dina ko tudd subhaanallahi walhamdulillahi laa ilaha illa la subhaanallahi al-azim ilaha subhaanallahi wa bihamdihi laa ilaha illa la hasbunallah wa ni'mal wakil laa ilaha illa la ni'mal mawla wa ni'man nasir laa ilaha illa la anta malikul jabbar laa ilaha illa mu ngoog kon nag dawaayir yi kon yéen euh, waa jamaa bi kon képp ku yaakaar kër gi kaay leen ñu àndandoo àndandoog sëriñ bi xalifa cheikh bu Mouhamed Kunta xalifa maam cheikh bu Naama xalifa cheikh Sidil Muxtaarul Kunti yu xalifa cheikh Sidi Abdul Qadir Jeylaani rasulullahi fil ard ñun ñëpp nañ leen àndandoo sikkar subhanallah àndandoo dem ca tànt ba fekk fa sëriñ Ndiassane moom mooy indi ci sa ñaareelu question lu tax juróom juboo kër gi lu tax juróom juboo daaray cheikh bu muhammad sëriñ bi maa ngi lay jox suma tontu ni la juróom dafa bari sekkere bàyyil sa xel ni l'islam li ko fondement juróom la seede ni yàllay buur te moo yónni yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi taxawal julli woor weeru koor génne azaka xaju baytillahi alalam waaw l'islam julli juróom julli yoo naa ni juróom la juróom ba tey ak kër gi yow mi qaadir sa wirde li koy ubbi su fekkente ni am nga izna soo xëyee suba si ak la koy tëj juróomi xëy la la weeruma sunu secret waaye lii mooy ubbi wirdu qaadir laa ilaha illa allah tunfi nifaq laa ilaha illa allah tuzillu shiqaq laa ilaha illa allah tahrifu saba tibaq laa ilaha illa allah tudi u zulumati layali lmiqaq laa ilaha illa allah sibaq sibaq juróom kunta juróomi dëkkam yi gën a siiw juróom la nee ma ndànk ndeer sanc buuna guyetti shérif njaasa nga dem saalum <laughs> cheikh bu Mohamed Kunta maam cheikh bu nu ama seen njaboot gafa fa nekk ca saalum juróomi dëkk la wala neexee kamataan lat menge cariak dagga yundum Kër Mamour nga ñëw maag yow ba tey ci juróom borom Njaasaan maamam yu tedd yi ak njabootam lépp dafa tënku ci juróom muy juróomi bekkaay yi nga xamante ni ñoo nekk ci ahlul kuntiyu te kenn du leen fàtte ki ci njëkk moo njëkk a tudd bekkaay mooy cheikh sidi ahmadul mu ngi tudd sidi sidi muhammad wala sidi ahmad yéen ñëpp histoire am booy na seeni nopp li tax ñu tuddee ko jooykat bi dafa ñëw walaata fa mu fanaan ku fa mës fanaan gaynde yi reere la am ku ni ko góor gi tee nga jóge fii nga nekk dem feneen ndax fii ay gaynde fii fàddaate mu ni fii la ma sama borom yabal te fii lay dal mook ñamu àndal waa dëkk ba xool daat ni ah nañu ko xaar bu subaa su fekkee gaynde yi fàdd na leen bu fa desee ay yax ñu ñëw rafetal ko rek suul kii ma gis ëndaale na ay bagage bu subaa bu ko gaynde yi fàddee ñu jël bagage yi bët set ñu ñëw fekk maam Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ma nga toog gaynde yaa ngi toog wala te riir wuti ko ñëw ba agsi nuyoo mu ni leen agsi leen ñu ni ko waxal ak sëñ yi mu ni yéen xanaa xamu leen bu ngeen ragalee yàlla lépp lu dul yàlla da leen di ragal ñi ay jaamu yàlla lañ agsi leen ñu door a ñemee agsi premier kaddu ba ñu ko njëkk a wax mooy dañoo bëgg nga jëleen ñu fi ñi <laughs> mu taxaw ci saase lañ ko ko wax rek mu daal ni yaa man tanazzaha bil kamali an waladi wa walidin qussa bil baqaayi wal xidami bi say xakuukin ibnadin qadimin fa jasin bi tamtamat damdamadha kaxsi yaa ahimi barik lana ardana bilbaayi an ajalin wahab lana nicmata tuula min annicami watrud li saakiniha min alsibaahi wa min kulli l aqaaribi walqayaati walsaxami moom ay gaynde lañ ko dàqalo woon mu boole ca jiid yaak jànkalaar yaak jaan ya <laughs> waxfir zunubi wa zanba man maay nazala wa zid salatan ala almuxtaari fi lqidami daa di geesu gaynde ni leen xuumu ila qaanata gana la ci jublu am na benn xur bu fa nekk ñu koy woowee waadi sibaq gaynde yi daal di rang def benn rang bu jub di dem moo tax sëriñ Mohamed Bouna way ko daan wala te daa daje te ni bekkaaya man di ciy leer xajil nu gaynde yi ba nu am nun fu nuy naan mu geesu gaynde ya naa leen ay ca ay ca wéy leen wéy mooy gana fii wala ta fii naan ñu toftale yéemu suuf si riir garab yi nuy ñaay tanaa ko noo ngi dem nanga nuy sànni ak ñaan bi génne yi demee nag ñu ni ko yow fii ngay toog dëkk ak ñun mu ni nag ñëw ma woon pour toog dama ñëwoon jaar fii di leen ziyaara waaye damay continuer sama yoon ñu ni ko lenn de am na soo fi toogul jàjj ñu suñu diine ëllëg dinañu layoog yow ci kanamu rasulullah ni ko dañoo wax nga toog dimbali ñu ci sunu diine nga bañu fi dem mu ni tënk ngeen ma ci sharia maam Cheikh Ahmadou Bekkay toog fa di jàngale booba wala te doy na waa di jàngale ba ñoom ñépp mu tënk leen ci diine taxawu leen ba benn bis fi mu doon jàngale alquran nag am benn rakka bu ko raw ci waxtu tisbaar la nee nañu nee na bi mu jógee di dem fekk jàkka ja rawee ko benn rakka waxul dafa fad rakka bi de ci julli mbooloo mu ñëw fay ko ba noppi toog di jooy bi mu ñëwee fu mu toog di jàngale rek ndeysaan di jooy di jooy kuy dund kay xam nañ say jooy waaye ki génn àddina ñu gis ay jooyam looloo mat laaj danoo toog fi nu ko rob xur la woon te ndox yi fa la nu daan jaar te booba temps xur bu ndox dee wal di fa jaar lu bari mën naa wuññi bàmmeel ba te yàlla du wuññi suturaam ñu jékki-jékki wala tam maral ay nitu yàlla yu bari gént di wax ni góor gii de fekk sulli ko suul ko ci montagne bi dëkk bi dootul taw premier nawet neexul deuxième nawet ba neexul troisième nawet ba góor gi nii leen lii ma leen wax du day ñu ni kon nañu ko def waaye nañu laaj kii bañ ko fi suuleek léegi ñaata at la ñu ñëw laajte Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay bàyyil xel maa ngi ci juróom yi de kañ lañ ko fi suuloon ñu ni Sidi Ahmad ma ñu xamoon de bi nu ko fi suuleek léegi mat na téeméeri at ñu daal di ree daat ni kooku kay boo demee doo fekk nit ay yax nga fay fekk wala nga xam ni seey na ci waxin góor gi ni leen man kii ma gis suuf du lekk yaramam na ko sulli te na ngeen ko siiwal a ah, ñu daal di woote DMTV Xadimul Xilaafa Bestnet ah Sen STV ñëpp dajaloo daat ni def publicité suba am na ku ñuy sulli fii ci Njaasaan à dix heures xanaa ceetaan ma dina bari ñëpp génn ñu ñëw fi góor gi tëdd ñu summi ñu sulli ko càngaay la sax soppeekuwul ba yaram way soppeeku nañu dem ci bindu Cheikh Sidi Muxtaar wa najluhu la indi parce que dafa njëkk a indi nazilu faskin lahu qadrun wa manhabatun kooku sidi sidi euh, sidi Mamdul Kuntiyu nazilu fask la moo tax mu ni wa najluhu way dina ma ko permettre su dee man dama naan ko wa jëdduhu ndax ndax eh, maami borom jaasaan ci moom lay waxtaan wajadduhu xadbaka tisina tatba'uha ashrun maqaafata rabbil kawni musdajiri bi amrihi naqala al aqyaaru jussatuhu min baxdi qarnin falam tarmim walam taxuri nee na niki maami borom njaasaan jooy na tisaina juróom-ñeent fukki at tatba'uha yu teg ashrun muy qarn muy un siècle lu tax ragal boroomam rek ñu baax ña wax na nu xibaar ya su lees na ko moom Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay nee na càngaay la sax soppeekuwul ba yaram yay ba yaram way soppeeku am ku ko xool rek gis rangooñ yi fii na bët bi meloon mu daan ni yuuxu daan ni kii de rakkaa ba mu doon jooy ndeke mi ngi koy jooy ci bàmmeel ñu commencé naan Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay Abu Dama lii moo indi ñu naan ko jooykat bi xanaa indil naa la bekkaay bi njëkk juróom laa la waxoon de kon dese naa lu ma la war a leerala gaynde yee dañ ko daan siyaar gaynde ya nga xamante ne dañoo demoon gaana <laughs> dañ daan ñëw di ko siyaar wa kaanatil usdu bil mummaati taxsiduhu tabarrukan fa yazilu durra bin nazari Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay mu nekk fa nag nekk walaata kii di benn bekkaay bi moo njëkk a jaboot ci kunta kunta benn doom la ñu daan am dale ca Uqba ibn Naafi ba ci Cheikh si Mamdil Kunti yu mi njëkk a sant kunta parce que bàyyil xel ni kunta tamit du du sant tur la maamam Cheikh Sidi Ali moomu nga gis rek defar na defar na defar na fukki xutbu Cheikh Sidi Ali defar na fukki xutbu léegi nag moo doon def siyaaka siyaaq yooyu mu doon def nag mu gis jigéen ju baax ju tudd ahwa bintu Muhammad Alim ibnu Kunta ibnu Zamd ba léegi maa ngi ci benn bekkaay bi mu daal koy jël soxna ñu may ko ko booba mu ngi def siyaaxam tourisme religieux mu daal koy jël soxna sa jël weer mu tàggoo ni maa ngi dem kii ci sama soxna góor lay doon su ganee àddina nañu ko tuddee Sidi Muhammad léegi nag maam ji yar yar sët bi ñu euh, arab daan na wax maam baay ñu naan Sidi Mouhammad ibn Kunta ñi wax Xasaaniya naan Sidi Mouhammad wul Kunta ñu koy wax ni Sidi Mouhammad doomu Kunta léegi nag ñu naan leen Kunta Kunta yi si Mamdul Kunti yu moomu nag moom Ahmadun faqat benn doom la ko yàlla dénk moo tax waykat ba daan ni si Mamdul Kunti yu walat min najlihi lbakkaayi Ahmadun faqat Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay moom moo njëkk a jaboot ci kunta moo tax kunta yi tasaaroo mooy maam maami borom Ndiassane moo tëdd ca walaata ca 16e ba tey te boo demee parfum ba muy xeeñ moom lay xeeñ ba tey càngaay la soppeekuwul yaram ba soppeekuwul kenn ngoog ci bekkaay moom la yàlla baaxee moo njëkk a jaboot moom moo jël soxna ñuy wax laal la mint amri gilaal maami sëriñ bekkaay baabu sama sëriñ am ci ñetti doom taawloo ci alxawsu Mouhamad Kuntiyu Saxiir Mouhamad Kuntiyu Saxiir am juróom-ñaari doom mu teg ca Cheikh Sidi Amar Cheikh dé mu teg ca Alhaji Aboubacar Alhaji Aboubacar am ñaari doom Ahmad Faqi Kunta wa Abdurrahman mooy ñoo ñu jóge woon Algérie ñëw jaalise Bakar Ahmad Faqi lañ mu teg ca Cheikh Sidi Amar Cheikh mu am ñetti doom ñuy fukki góor ak ñaar ñii ñoo meññ kunte yi ba nu tasaaroo. partout dans le monde kan mooy ñaareelu bekkaay bi ñaareelu bekkaay bi mooy siidi bekkaay moo jur am Cheikh Bounama mi nga xamante ni moo jur suma turandoo Cheikh Bounama woy juróom mi ngi tudd siidi bekkaay ma nga ca Algérie dëkk bu ñuy wax Aqibli kon wax naa la ñaari bekkaay am na ñetteel ku ñuy wax Cheikh al Bekkaay Saare Diin borom dëkkub diine ba cheikh sidi mahamadul xalifa ko jur cheikh sidi mahamadul xalifa cheikh sidi muxtaar ko jur moom moo yoroon flambeau ndax mam cheikh bunu ama ba mu nekkee ca Bulanwaar di def tarbiyaam juróom-ñaari at rek la fa def maam cheikh sidi muxtaar yeewi ko fiiraa nge am ñu ni kii bi mu fi ñëwee yàggul lan moo tax mu ñëw rek góor gi di ko yeewi góor gi ni leen bi ngeen di ñëw saaku yu deful dara ngeen moom nag feesoon na dañ ko doon feccili rek waaye ca nekkinam foofa du loolu rek bi mu ko yeewee ci xissa bu gudd ba mu ñëw ba sañ ci ndànk daf fi nekk 1800 ba 1811 ñu tàgge Cheikh Sidi Mokhtar mu dem di ko jaale bi mu demee jaale ji maam Cheikh Sidil Muxtaar nag keroog la dajale mbooloo ma fa nekk yëpp waxtaan ak ñoom maam bu naa Bunaama moo wax ni nanu jaayanteeg Cheikh Sidil Mamdul Xalifa Cheikh Al Hadj ci la bokkoon ci circonstance bu metti mu waxtaan fa nag ak Cheikh Sidiya ci kanamu Cheikh Sidi Mouhamed am lu mu ko jox ni ko daan nañ ci waxtaan. waaye nag lii dama bëgg wax la ni borom dina ko jël si sama doom lay doon ganeegul àddina waaye su ko matee dina ko jël si ndénkaane boobu la borom Ndiassane demoon jëli ca Boutilimit waaye li yéeme at ma mu koy jëli ci la Cheikh Xalbekaay Saara Diin génn àddina kon wax naa la ñaari bekkaay boroom Ndiassane dem jël ndénkaane booba ci sa bu gudd damaa jël si sama yëf lan laa la yoreel lala sama baay joxoon ca kër Cheikh Sidil Muxtaar mu daan ni ko man dey li ngay wax xaw ma ko mu ni ko su ma ci amee ndigal duggi jël ko mu ni ko jox naa la ndigal mu dugg ci biir xool fa mu ne jël yëfam keroog lépp luy xeetu teraanga Cheikh Sidiya defal na ko Cheikh bu Mouhamed Kunta suma turando ngir xam ni kii moo mat sëkk li mu doon te ku nekk xam na Cheikh Sidiye lan moo ko yóbbu woon ci Cheikh Sidi Muxtar bi muy dem booba boobu du jaahil de kaana kaamilan booba mat na sëkk lenn rek la doon wut walam yakun mukammilan dafa doon wut ku muy àggale <laughs> loolu la demoon wuti kër Cheikh te ba mu demee mat na ko sëkk kon andil naa la ñetti Cheikh al Bekkaay ci juróom rek lay jëm mais beneen Cheikh al bi mooy ki yar sama turandoo mooy doom doomi maam Cheikh Bounama toog ndànk mate ko sëkk uuf njaboot gi boroom àndaari ndànk ya bis bu nekk mu rey nag ca penc ma rey nag këram rey xaar kër maam Khalifa rey xaar kër maam Sidi Maxtaar nattal ñëpp jël kooku la maam Cheikh bu naa ma dénkoon sama turando ni ko bu ko kenn sonal am na lu nekk ci moom sa rakk la waaye sa dooma ni ko wàllu njàngam am na xarit bu ko ciy dimbali mu taxawu ko lool yiir ko fu mu dem yóbbaale ko xattaa ba muy dem ndar keroog dafa yóbbaale sama turando moo tax Cheikh Bekay Babu sama sëriñ daal ni Cheikh Bokun tay wali laa jël sax Tuubaa bi ndar géej àndoon na fa magam wane fay mbir yu kéemaan dem boobu nga doon gis maam Cheikh al Bekay te jàkkaarloog Faidherbe te ya ca xew-xew ca baaraam yay génne bali fital kër gi sax bëgguñu ji wax yooyu waaye sama turandoo la àndaloon maam Cheikh al Bekay fa tabarakallahu kon wax naa la ñeent sa question maa ngi ci juróomeelu bekkaay beykan mais mooy cheikhal bekkaay mi nga xamante ni mooy taawu suma turandoo njëkk a yor xilaafaam bi muy toog ëddudu wala la toogee quarante ans xam nga lu mu ciy teg quinze ans la def ci xilaafaam cinquante cinq ans ëddudu mujibu way juróom génne àddina ëddudu dalil soixante kon góor gi la yàlla may ay mbiram mu méngoo góor gi la yàlla may ay mbiram parce que nga bëgg buur buur bëgg laa ko gën bëgg buur buur bëgg laa ko gën looloo tax ma daan ni mënoon na noo fanaan ci juróom ca la ma la wax sa question bu njëkk ba tamu bett ma lool mooy bi nga ma laaj muy ibn kër gi noona la ma bii bettee ma indil la ci yii pour ñu téyee ko sunu pas-pas waa borom Ndiassane nag gàmm nag xanaa mooy sa ñetteelu question borom Ndiassane ak gàmmu borom Ndiassane ak maamam ngay wax yàlla dafa dogal mu jubóog rasulullah maamam moo ko bëggal boppam waaye borom njaasaan boromam moo ko bëggal boppam xam nga rasulullah mooy jaaruwaay bi yàlla dañu yoon ci yàlla muhammad waxal nit ñi sunu bëggee ma bëgg leen nañu la topp yow mi ma bëgg xul in kuntum tuhibbuna allah mu ni nga joxañ sa bopp joxañ bu dul puukare fattabiuni su ko defee yuhbibkumullah ci bëgg rekk lay waxte tey borom njaasaan yàlla def ko muy muraat yëgal ni dafa am murid am marid am muraat dafa am ku nam ma dem ci boromam bis bu xëyee loolu lay wut di nab nabi ba keroog yàlla di ko dimbali mu àgg ci moom am koo xam ni marit la bu xëyee waxul ci yàlla dara yàlla waxul dara ci moom am koo xam ni muraad la bu xëyee bu waxee ci dara ci boromam boromam wax ci moom dara bu waxul dara ci boromam boromam wax ci moom dara kookoy borom jaasal maamam yi dañ ko doon xëccoo ci ni ñu ko bëggee te mu wax waxam yi du neex a ñeme bu jubóog maamam yëpp maamam yëpp di ko seet si moo tax sumay tawasul yi may def ci moom loolu laa koy wax di ngeen déggul mu bari ma naan ko sa maam yëpp nañ teew mu jubóog rijaalul xay bi ñëpp dañ koy seet si ku ne xam na digganteem ak xadar noonu la mel ak waysul qarni noonu la mel noonu la mel noonu la mel ak maamam yi Cheikh Sidi Abdou Qadir Jeylaani ñaata yoon maa ah xasidaam yi yenn saa du ma ci bëgg sori ana alladi rafaxtu mustafa alkarim fii qaaba qawsayni maa jilaani mosuñu tàqali ko te ñoo bokk tur cheikh abdul qadir jilaani mi ngi tudd abu muhammad mais sama turandoo borom njaasaan mi ngi tudd abu muhammad mu bokk ak rasulullah maam wëlbatiku yonent yàlla muhammad di maama ci gàttal way juram maam Cheikh bunu ama mum na Chérif moo ko jur maam mum na bintu Bazlul Ismail la bay bi tudd waaye euh, tabe gu mu tabe su la daan may xaalis da la koy xëpp xam-xamit noonu day bëpp wallahi bazalta maalan wa ilman noonu la ko yàlla bindee woon ñu naan ko Bazlul kooku sëtu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani la te Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci wàllu yaayam Xuseyn mooy maamam ci wàllu baayam Xasan mooy maamam mu nekk shérif umman wa aban am sax geneenug shérif mooy sharafug ragal yàlla moo tax sëriñ euh, euh, sëriñ Mohamed Bouna ba mu koy tàgg mu ni oh, Cheikh Abdul Qadir ma ni la cheikh yi mel ni moom bariwul mooy shérif umman wa ëban ñun sunu sëriñ tilimul ab shérif la sax ñetti yoon lay ñetteel ba moo di ragal yàlla waaxidun ka ko may tiitar ak maqaama yu dul dañ du wàññi ko abadan cheikh abdul xaadir ku fal ak wilaya daa ko falu soo gëmul nu dal di la fël ak texe di jublu ci yow loo falang falang dana dal waaw foofu côté shérif gi laa la indil lu tax nag borom njaasaan ànd ak ñëpp bi ba pare bu dara desul lu dul ngénte ñu ni moom mooy ngénte wax naa la ko moog rasulullahi dañoo bokk maam moo tax mu am cër bu tol ni maamam ci wàllu euh, baay mu jur rasulullahi ban maamam borom njaasaan mi ngi tudd cheikh bu Mouhamed Kunta way juróom mooy maam cheikh bu Naama Sidi Bekkayo ko jur Sidi Mouhammad Abdourahman Ahmad Sahibu Naamata Abdourahman Haj Aboubacar Cheikh Sidi Ahmadul Bekkay Sidi Mamdil Kunti Ibnu Ali Yahya Ousmane Yahsh Dawman Shakir Aqib Uqbatul Mustajab Uqba mi mooy maamu Kunte yi Uqba mi ma lay wax waxuma Uqba ibnu Amir de Uqba ibnu Nafi Fihri mooy maami Cheikh bu Mohamed Kunta borom Jaasaan Uqba Naafi moo ko jur Naafi Abdul Qays Luqayt Amir Umayya Zarb Haris ibn Fihir yëgal ni diggante Uqba ak Fihir Quraysh ibn Malik juróom-ñaari maama fi dox waaye yëgal ni diggante yonent yàlla Muhammad ak Fihir fukki maama fi dox Sayyiduna Muhammad ibn Abdallah Abdul Muttalib Hashim Abdi Manaf Xusay kilab muratakab luway xaalib fihir lii moom moo tax borom njasaan am njureel ba mu fi ñëwee léegi 1883 ren la 140e édition ba mu fi ñëweek léegi moom borom njaasaan at mu jot rek mu ngi màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi ñu tegale nag di jàng téere gis nga su gàmmu masaan jot bi mu ñëwee booba temps defal na ko sax ñu bari am na ñu mu tariloo sax ay téere defal na ko maam Ansu Thiam téere bii di Ibnul Muhayyib sunu mosaan a dem bi ca fu mu dëkk ñoom loolu mooy doon seen ndam bisu su mawlut mu dem toog fii borom Njaasaan téye ko daanaka bañ ni suba la mu waaj ni ko sunu bis baa ngi waaj a ñëw mu ni ko demal sol ko téere bi te ñoom nag mu dem jorul té té tiimul téere loo laaj maam Ansu mu tari ko dañ daan euh, jàng fi hamziya dañu daan jàng xuratul absar dañu daan jàng euh, mawlidul manawi dañu daan jang téere yi kër gi d'abord salawaat yi nga xam ne Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moo ko def dañu ko daan jàng dañu daan jàng salawaat yi nga xamante ni Cheikh Sidil Muxtaarul Kunti yu moom moo ko def téere bu siiw boobu euh, du téere rek Euh, di naf ku tiib fii salati ala nabi al nga xam ni téere bi dafa am histoire fa tabarakallahu noonu la mel ci salaatu yi nga xam ne ci Abdul Qadir Jeylaani def na ko am na ci benn daf ma jige ba mu ëpp euh, jàng naa ko màkk bay seet sama xol di xool ndax seeyul kër gee mel noonu loolu la yàlla dogal xam nga ku ma jige li génn ci man ci rangoñ da nga naan lii ndax mës naa génn ci nit te dara waralu ko lu mooy salaatu ala nabi kër gi moo bindoo noonu fa tabarakallahu ñuy sant yàlla borom jaasaan nag di def loolu di ko def 1883 ba 1902 xoola ma rafetal googu maam Seydil Hadji Malick war a taxawal gàmmu mawlud ñëw waxtaan ci ak moom muy mbokkam di xaritam bi mu moom ni ko dafa bëgg taxawal gàmmu mu ni ko kontaan naa ci gërëm ko ci sant ko ci ni ko ta pour wan la ni kontaan naa ci bi bisu mawlud bi da ngay woo mbooloo man ma wàcce fii kaamil ñu def suñuy salawaat ñu fekk si la su ngénte jotee ma ngénte ndax bii wàll sama maam la bii wàll maa ngi moo bokk maam rasulullahi Qurayshi la waaye Hachimi la ñoo bokk Quraysh gi ñoo bokk nekk Hachim mu nekk ci suma maam borom Ndiassane 1902 la commencé di def ngénte li ndax lu tax doom mënoo ko ngénte te juróo ko mbaa ki ko jur jox la ndigal lii moo boole kunta ak ngénte bu nu ñëwee nag naka lañ koy defee ñu ngi koy def ci tudd yàlla ci bàkk yoon ci la Muhammad ci fàttali ko ay jikkoom foo ma déggee ñuy wax ci gàmmu ña koy contre yooyu duma ci commenté dama leen di defal nasiha képp koo xamante ni ma bëgg nga daasaat sa diine ah del ñëw gàmmu nag parce que soo fi ñëwee di nga gën a bëgg yoon ci Yàlla Muhammad di nga gën a bëgg jàngaleen fii lan lan fii def wàcce alquranul karim di ko jàng dëkk bi riir bu ñu demee ba ca ngoon nga nag ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo demee ci bërëb yi ñu koy taggee suñ waykat ja waxee ba ca kanam borom xam-xam yi ñëw jajji din ñi ñu koy def di bàkk yàlla wax dëgg yàlla nag loola képp ku ko sa xol attanul ah man day wax dëgg yàlla danga may mujj jaaxal nag loola nag mosu fee jóg muy teraanga jooju loolu tax dëkk bii di dëkku barke yàlla dogal nag bi ko boroom Ndiassane di def ba 1914 mi ngi tombeeg un juillet ci la génn àddina bi muy waaj a génn àddina mu woo doomam maam Cheikh Bekkaay bokk na ca ndénkaane ya mu ni ko Bekkaay lii ma yor day lu jóge ci góor la di wàcc ba yegg si ci man maa ngi lay ñaan ngal la waaye bul mujje puso bi mu réer doom nawle la yëgal ni tariqa bi ñaari laaf lay naawe mabniyatun alal kitaabi wa sunna samaam cheikhu jeylaani nee na fa man xaalafahuma fa laysa minna ku fi bàyyi ñaar yi rek nee na bokkoo ci ñu téere bi yàlla bi sunna samaam yoon ci yàlla muhammad bekkaay na sax ci li bekkaay na nga uuf say rakk te yërëm leen bekkaay na say rakk topp ci yow bekkaay na nga laaye biir képp ku ko bëgg bekkaay képp ku la dog na ko jokk na nga fonk sa dëkku baay bii te su ma génnee àddina waay waay waay waay waay na nga lu gaaw denc su ngeen ko defee te sax ci li ma wax ku fi toog ki koy wuutu mën naa tax ngeen fàtte ko ndax barke bu nu yësal la ku fi toog yaay man ñu noddu tisbaar mu ni loolu du nodd julli ruu borom njaasaan dog ñu rob ko diggante tisbaar ak tàkkusaan may laye biir ñiy wax naan daawul gis tubaab ahan kay tubaab yi daan nañ fi ñëw daan nañu manqué sax AOF e lu ñu fayee seen personnel Afrique occidentale française borom njaasaan di leen lebal li nu jaawale kay mooy loolu bis bi mu génnee àddina tubaab daf ko tiimul borom Ndiassane mi ngi génn àddina le di 13 juillet tubaab yi ñu ngi fi ñëw le mardi 14 juillet <laughs> bi nu ñëwee fekk nañ lu war rek Cheikh al Bekkay def na ko dénk maam Kanda Touré caabi yi maam moo tëj néeg yëpp ñu ñëw fu ci nekk moo leen ubbi kon loolu lay daye biir ñi naan euh, gisul gis na tubaab ba tey commandant de cercle bi mu fi ñëwee di wax ak moom yàgg na fee ñëw. te mu yebal góor gi Modibo ñu ko Modibo demal wax ak moom ñoom daawuñu hésité te booba mosta ta jàng école française mu dem rek wax ak moom lakk ko tubaab yu wér dellu si nag nit ñi di ko yem naan Modibo mooy maamu général Keita bii nga doon dégg ndeysaan mës ta jàng tubaab dem di wax ak kii ah may wax ci sama xel ni leen daa jëfe ndigal moo tax borom Ndiassane dégg ko bariwul woon wax mu ni ah loolu ngeen di tiitooro mu ni bila fayda bisoo ayit mu ni loolu du ndam Modibo mu ni waaw mu ni ko jogal tari alquran muy bàgg nit ñi di ko xool mu tari baqara ba naas mu jën a nekk alimu kulli fannin bokk ci ñiy jàngale sunu bindee lettre arab mën na ko tontu suñu bindee lettre français mën na ko tontu te daara ji kat mu bokk ko góor gi may ba Cheikh may ba maam Issa Ndiaye maam Jaafara ñoo ñu mag ñu baax ñoo ñooñu fa tabarakallahu ñëpp borom Njaasaan Euh, defaral leen boppam taxawaay boobu nag Cheikh Bekay mate ko sëkk Cheikh Bekay mate ko sëkk toog fi quinze ans uuf njaboot gi miiras baayam taxawu leen ñi mu war a yóbbu gànnaar mu yóbbu leen ba 1929 Cheikh Bekay génn àddina Cheikh Sine Lamine ñëw jël relève bi de 1929 ba 1973 44 ans et de du dum kenn yàbbuñu kilifa diine mosuñoo yàpp kilifa aada mosuñoo yàpp noona maam Mamadou ñëw jël relève bi 1973 ba 1976 30 mois la toog 2 ans 6 mois lotissé dëkk bi yaatal mbedd yi indi robinet ainsi de suite yaatal Cheikh Sidi Yaxya ñëw mi ma tuddee borom Ndiassane 1976 ba 1987 heure de huwa 11 ans la toog. fa tabarakallahu defar dëkk bi lépp loo xamante ni jotoon naa rëcc ci kër gi Cheikh Sidi Yaxya delloo si na ko Cheikh Sidi Yaxya génn àddina bàyyi boo ñëw 1987 ba 2006 le 29 avril ñëw ni may caatu borom Ndiassane daat ni këll ba nga xamante ni sama bay dëppoon na ko dippar ñi naa ko def ci meew <laughs> waxeertu ka daan bind jox ma ka daan wax ma bind ngir rek bëgg ma yokk doonay maam bu naam moom ma njëkk a sant émission en 1998 ma def def ko rajo boobaak léegi mu may santi jàng te booba matuma ko mu ñëw dalal ma yaatal fa tabaarakallaahu yaatal dëkk bi yokk te wàññiwul mu génn àddina Cheikh Seydil Hadji Maam bu ñëw di premier sët bi njëkk toog toog fi douze ans xabaayul kunta douze la xabaayul quraysh douze la maam allah ji nekk fii ci rafetal yaatal dëkk bi lépp ku ne xam na ni lépp yokk na xabaayilu kunta nag dajaloo ñëw fekk ko fi daal ni ko yaay sunu kilifa kunta yëpp ci àddina bi ñëw dajaloo ni ko yaay sunu kilifa mu génn àddina rakkam ñëw toog cheikh bekkaay may caatu cheikh bekkaay ma nekkoon taawu borom njaasaan mbir mi doom yi jeex nañu ki tudd cheikh boo ko tëj léegi sët yi war a ubbi ki ki tudd cheikh boo ko ubbi na mu demee woon ca jamonoy borom Ndiassane eh, Cheikh al ko wuutu Cheikh al ñëw wuutu Mame Balla moo mu ni tekk waxul nekk fi nekk fi nekk fi moom it ba matal ci juróom yi du wax lu dul ah, lii ma leen di digal de xam naa ni yéen a ngi ci lu ngeen di def waxtu julli jut na ngeen ko bàyyi dem jàpp te julli bu ngeen paree balaa ngeen a jóg na ngeen seen soxla te ngeen fonk seeni i wayju lii mooy kàddu Mame Becaye ba ni mu génnee àddina mu génn àddina nag fa tabarakallahu le 16 mai cheikh al Becaye cheikh cheikh Bou Sidi Muxtaar daal di ñëw wuutu ko na mu bokkee woon ak alaji maam bu seen ñaari yaay yi bokk ndey ak baay noonu la bokkeek euh, cheikh Bou Sidi Muxtaar mi seen ñaari bai yi bokk ndey ak baay kii toog nag déglul ma xam le ko jafewul mooy ki doon ak baax Cheikh Bou Sidi Muxtaar kii inna alxilaafata xat atatka ya sanadi min duni ma talab Cheikh Bou Sidi Muxtaar inna zawaiba min firin wa ixwatihim yaa doonnu garmiya Cheikh Bou Sidi Muxtaar lu ñëw rek daf koy séddale tabaski xar yëpp lay delloo njabootu cheikh bu lu ñëw mu séddale cheikh bu Sidi Muxtaar ci wàllu fidda nag lii ñëw sax du laal alalam yaa donn ak tabe cheikh bu Sidi Muxtaar ma wax nag ni nañ ko bàyyi xel ma ciinu dimb nag dina tax ak weexam na ngeen teey bu kenn jéem a yab cheikh bu Sidi yi nawet bi bar mbagga ku ci yaafuus sa tool dana booy ñëw leen ñu jàppale cheikh bu Sidi Muxtaar ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér lépp lu ñu fi wax mu baax ndimbalu sunu boroom la lépp loo xamante ni wax nanu ko te jaarul yoon nitamatul te nag waxe ñu sax ak wér waaye yéen du ngeen ñu sant lu nu deful nab nabi nañu maa ngi jeexal di leen wax nag ni euh, maa ngi wax la la xulafaa daan wax nit ñi dañuy am yaakaar rek naan la da ngaa baax soo ko mësaan wax moom Omar ibn Abdul foofu sax lay tëjee ci juróom yi ndaxte ñeenti xulafa ñoo am xulafa wa arbaa waaye Omar ibn Abdul Aziz la ñu andi mu juróomeel leen ngir mbaaxam moom kàddoom lay tëjee daf daan wax ni yàlla yàlla na nga leen baal baax baax yi ñuy wax ci man te xam nga ma xam boo ma càmbaree rek duma ma waaye yàlla bul tas seen yaakaar ci man allahuma ijalni fawxa ma yazunuun wala tuwaqisni bi ma yaquluun waxfir li ma la yaalamuun allahuma ixfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رسول الله عبادي صفوف دان الهتوف